ñu nuyu baax mbokki internet yi nga xam ne saa su nekk ñoo ñu bàyyi xel fii ci Refane TV bu leen fàtte ne waxoon nañ leen fii ba màggal danañ fa amal ay plateau yu ama am solo waa comme ni ko sëñ Magu defee ci suba soxna awee defee ko fi léegi nii waa damay bàyyi sama invité rek mu présenté wu Serigne Ndiaga Fall Xasaayit sëñ Ndiaga maa ngi lay nuyu. nagay tey maa yaa ngi am tawféex bu baax a baax. di nuyu di nuyu mboolem waa Refane TV gi yëpp. di nuyu waa Refane ga ngeen jóge ak la ko wër yëpp di nuyu Cheikh Mountakha Bassirou mi nga xam ne mooy xalifaab sëñ Bamba di xalifaab murit yëpp di ko ñaanal yàlla fanu gudd ak wér sëñ am di Modou Mbenda mi nga xam mooy xalifaab Cheikh Ibrahima yàlla dolli ko kàttan ak wér yi mu yëpp di nuyu sëñ Sumbul Silla xalifaab sëñ ci la Tassir ak sëñ Lamine ci ci la wunte ñu ngi koy siyaare bu baax. te di ko ñaanal moom it mu yàgg a toogee jataayu sëñ ci la tas si bi sëñ mu fi wuutu bu yàggul yàlla yàlla doole ay leeram mook sëñ madd si la ak njabootu sëñ si gépp may nuyu sëñ Cheikh si la mi nga xam ne mooy xalifa sëñ madd ak mbooleem ku jokk ci sëñ ci la tas si yëpp taalibe yi bàyyiwuma kenn ñi ci biir réew mi ñi ci bitim réew di nuyu waa xombal gépp ak waa ci la boobu ka nga xam ne fa lanoo dëkk di nuyu suñuy waay jur suñuy njaboot suñuy mag ak suñuy rak ak mbooleem kuy seetaan Refane TV Ndiaga Fall xasaayit ñu ngi lay nuyu di nuyu mboolem ñi ci yoon yi tey màggal si ñu màggal si ci jàmm. waaw kon si Ndiaga dañ lay bàyyi rek nga daaj daal di ko nuyu mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi lay bàyyi xel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فارقت إبليس وجميع المفاسد وبسم الله الرحمن الرحيم لا سمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المسالي ولا حول ولا قوة إلا بالله يا العظيم جاورت الله بكتابي إلى دخول جنته جاورت بالفرقان ربي يا المخين ملكت النسيا وصحصحت الليل جاورت بالفرخان ربي المهين ملك النفس يا وصحصحت الغين أخذت من دنيا وزاد الجنان وارخاد لي ولي سفى الجنان ولا لي الأبرار في الأخرى وانخاد لي بالانتهاء الخرايا رافقني إلى نجيم ولسوايا سوسيا الرجيم ترشاني لين والفجار كونو بديل لمن الجار أكرمني بدي بالكتاب وصلني عن جالب لم يرهني إلى دخول الجنة خير البسارات ليس الملة لم يلوني سجر ولا ويد ومري إلى الجنان ويد أغفر لي يسر المسن الله حبا ولا إله إلا الله خدني الله وإنه البديع وغدني له بأنواع البديع برأني خالي من سواه وخاتني من لا يرى سرواه كتاب ربك أنا لي وكنت لو لله بي سكنتو ترشي عن الأقدار والمفاسد سلامة من جالب الفاسد أكرمني الله بسجري وما لغدار وليغار الله وما بابي الله كرام الغرى وببقايا النبي سرا هبات ذي الجلال والإكرام لخلد المراقب الكرام لا يغاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لسوى سكوى أبدا في كوني جار البديع عجبا لكوني إن الذي من الإله يوصى حباني قولي وذي فزت دلني الله على الله بلا تقرر وأمري تقبلا خابت قلاتي مال سادي مسمني وسبلا كزادي وخالي الباخي بسبورة تجارة لدي لن تبورة لم يروني مبا عن الله فضل ولا إله إلا الله يقود لبلدي سمني من كان لي ولي صفا سمني جاوة ربي بلسان عربي بلا آيات وتابت قربي نساني الإسلام بين غربتي لدى الجزائر منير تربتي نسيان نور لسان والكتاب أغنى يمين على سروة من رتاب تسل ما سبت للمصفي أغنى يمين على سروة من في هداني الله وسوس الله إلى سواي عمري بس المين أدي برم توبا am na solo lool ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax waaw ba tey rek seen plateau wàccaay màggal ku leen bu leen fàttali ñu ngi ci 18 safar muy bés bu màgg bés bi nga xam ne ci la Cheikhul Khadim ne kaay leen santal me borom bi subhaana wa taala Euh, tey sëñ Ndiaga Fall su ma la doon laaj maanaam solos màggal ndax sëriñ bi daane kaa leen santale borom bi maanaam lan nga ñu ci mën a wax maanaam ci ci bésu màggal pour pour ñu baaxee ko mbokk taalibe waa waaw màggal gi de sëriñ bi suñ borom da koo defal xewal gu rëy goo xamante ni. Mm-hmm. daj na àddina kap mm-hmm. mu yéene jullit ñépp ak mbindeef yàlla yépp jàmm mu ni lii nag lott naa ci ngir sant ko man kese. képp koo xam ne sama mbir sa mbir la ni mu ko waxee rek na nga ñëw santale ma ci yàlla cant gi nag ngeen doore ko ci njàngum alxuraan ak xasida tuur deret ci lu lew bernde julli ci yenent bi jéggalante baalante àq te lu waay yéene sa bopp nga yéene ko moroomam loolu mooy cant gi maanaam ñu gis na yaa ngi yëngu ci wàllu xasaayit bi xas xasida lan lay def ci doomu aadama ndax xasida bi defe naa li ci sëriñ bi wax bari na lool li mu ci tënk tamit yéeme na macha allah kuy jàng xasida daal ban melokaan la war a am ba ñu ba buñ ko xoole rek xam ne kii daal jàngkatu xasaayit la ndax sëñ bi daa fonk lool ndax neen xasida yi mooy sama karaama kon ñu ngi lay bàyyi nga wax ñu ci tuuti rek. waa xasida yi daanaka day xéewal goo xamante ni sëriñ bi moo ko xéewale mm-hmm. am ci ñu yàlla natt ñuy biral di yëkkati am ñoo xam ne dañuy yalu jàngkati xasida yi bari nañu ñii toog sax ay jàngkat lañu waaye daa am ñoo xamante ni dañoo am jagleelu yëkkati am ñoo xamante ni dañuy am jagleelu di yalu melokaan wi nag xasida yee koy njëkk a def ci sa jëmm ndax bu yàlla dogalee mu dem ba jaxasoog sa deret dina la protéger ci yu bari yoo xayante ni ay xeeti sàggante la ba doo ci mën a tàbbi doli ci sa goru nak ak dimbalu serigne bi may la melokaan waxante ni melokaanu julit lay don melokaanu talibé melokaanu murit lolou la xassidey def ci nit da nga wara a ko xamanteni sa ni xol dafa wara a rafet mm-hmm. nga don ko xamanteni ni ab jullit ngay don jaamu katu bi yalla nango jéggale mm-hmm. tey jëlalé té nggeng nggeng tooñ te ku nga bal lolou loolu mooy jankatu xassidey mm-hmm. kon dégg ngeen ko bax bax kon lañu bay rek nga nga nga bëggalaat rek ci xassidey waaw ñu ngi am mbégte bu baax ci jataay bi. ndax euh, doon na loo xamante ni yàgg nañ ko bëgg. Mhm. yàlla jaarale ko ci sunu wëllëre wala alaaji caanaar mhm. ñu am ci mbégte lool ndax xam naa ne xat na lool waaye euh, ñu jaayante ba ñëw ci. Mhm. ngir bégalante yéen ci xaside yi. ñu ngi nuyu mboolem koo xam yaa ngi seetaan Refane TV. itam bég nañ lool de. waaw ndax it nag euh, xaside yi daa nekk loo xam ne xéewal la gu yaatu goo xam ne fu nekk rek. boko deglo fajuk fajug aajo la boo ko boo koy jang fajuk aajo la fajug aajo la kon nak maa ngi mbollem ko xamanteni xamante ni setan di nuyu bu baax seigne Maxtaar mi nga xamne suñu jëwriñ la ci liggey bi seigne Maxtaar Fall mm. diko siar ak mbollem jankati xassidi yeb ak ñom seigne Ousmane mi nga xamne jaar nañ fi mm. tabarakallah kon ñu dal di tabbi wat ci den xasida gu gat rek bayila nga egg ci say laaj inshallah allah mm. madu nabil muntaxa saadul ilah بدء إلهنا سواي بالإله حب نبي للإله سوارا ساد إلى المدينة المنورة محمد صلى الله عليه وسلم بدلنا ولا محمد فرد يفوق تسليها وفاق الجمل والخدايا مخنيا درجة المختار بالمرسل بيت الله درجات رسولي كل نبي ورسول يتبع خلف الوسيلة والمتبع أحمد أحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن جماله يسبي فؤاد رائي ونرجو يخني عن ابتلائي وصلنا اللسان للإلام يسر وغدي في كل سنة وغيره من خدمات سنه لم يخفق لمن والبلا ردتي والبيت زادا ويلا ولا لي وابلها من آس في ما يريد في مكة والمدينة بلا فت ولا كدر فيها ولا بين عدل يا رب العالمين من سنانك تواكل البصر والجن والملك لن يبصر هكا سواك خير من الورى وأنت خير من الله يسورى مدى إليك الله فلن كما إليك ما لم يسرى متك جزل تذكرى أخبر يا خير ذكرا دوت لله يلي البصرا والجنان خير لا البصرا احفظ وجهك الكريم كل من حفظت الابيات في كل زمن ليسجب ربي ووجه فعلا وسر ابليس لخير فعلا لك فؤادي يا الهي ينمان وكل من خسد خيرك فان إفسلا يسائر وما بطن من المفاسد وسفل العتن حبل دولا فيما كزا أمن في الآل والمال مالك سمن تبارك وتعالى آمين يا رب العالمين اليمن ويسر وخير سددي في الخير سيري قد أتى بالمدد حتى كل سكر سكر الآدي عن مالك مكرم ملتادي فسسيد بالقرآن من ددي نجا بما يديم خير سددي اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسدنا آمين ما شاء الله ما شاء الله واي سيدنا سيدنا am na solo loolu waaye am na solo ñu ngi jaajëfal ba tey sponsor yi nga xam ne ñoom lañu àndal muy waa Daaru Salaam Lunette ak waa Xelcom numérique ñu ngi leen di jaajëfal ba a si ànd gi ñu ànd ak ñun waa Refane TV di jaajëfal ñi nga xam ne rek ba tey ñu ngi ñuy bàyyi xel fi si Refane TV waa sëñ Ndiaga bëggoon nañu xam ban année nga tàmbalee njàngum xasaayit ak maanaam lan moo waral nga nekk ci di di tu di di jàng xasida yi daal bëggoon nañu xam tool tamit ci yow. xasaayit yi day njàng mi ndono la ci ñun. ndax suñu waajur wu góor alaaji Limaan Fall moko dan def di and ak suñu Baye Gan sil Baye Ablaye sen Baye Ablaye Tine Baye Ndiaga Ñang ak mbollem gaay yi bax yi nga ñoo Bawal ba jor ñu ci ñi di ko def ni ñu and ci ak suñu mak Sëñ Maxtaar lool mo ñu jogal ci njàngum xasaay mu nek lo xamanteni euh mbégte la ci ñun ci ci dara ndax bi la rek kon ñu ko ci sant bu baax ñaan yalla muy sunu fajuk aja di fajuk aajo nit ñep lool dal mo ñu dugal jang njàng mi waaw bëgg xam ban ban ban at nga tambalé jang xassida jang xassida moom dama xàmmee rek nek ci nek ci wa ndax xam naa ni dal ci naka sama ndortel fukki at japp sama juroom ñette jëm fuk señ maxtaar commencé na ma yobbu ay jang mhm. may and ak mom nek tout tank di ci dem fépp di and ak mom mu tel ma cee ci lool da naka lool mo sabab ñu tel ci dugg ndax dugg nañ ci lu yàgg sax di ànd ak ñoom te taxut ñu miin xasida yi waaye boobu yàlla jagle nañu baat baat do xamante ni maanaam fu ñu ko yëkkati ñëpp dinañ ko dégg macha allah loolu moo waral ñu teel ci tàbbi waaw ba nii ñu ci nekk ni rek mm, yàlla ngeen ci daje ngërëmal sëriñ bi waaye kon lañ lay bàyyi rek nga nga bëgg la tuñu rek ndax li ngay wax am na solo lool macha allah waaw kon ayca bisimilah ñoo ngi yaamaat mbégte bu baax xam naa gunge la ci waxtaan bi mm. ndax comme dañoo nekk ci màggal gi mm-hmm. ñu ngi soññ mbooleem gaay ñi nga xam ne ñi ngi ci yoon yi di ñëw ñu baye xel ci xel yi tamit ndax jaar nañ ci biir te bari woon na ay gàllankoor ci xew kon ñu ngi soññi sëfoor si ñu def ndànk te wàññi xewal gi bu baax a baax a baax ndax taalibe yëpp mën a ñëw ci màggal gi ñu mm-hmm. jaayante ci rek def ko àddee sëriñ bi mm-hmm. te daw ndànk ndax ñu mën a iske ndànk gaa yi mën a ñëw màggal ci jàmm mm-hmm. ci barke alxuraan karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد ربي بما يسره أصان غار فجاء بجاء أفضل من لله خان لجا حني لراب الداري من لا سرق له وسادري ren sa القرآن خراء ودومه المصطفى عن كل ما مفسدات وترغب الخلق من جاد بدأ عن جرام جميع الوارا يا ديان ردا موت ما خلاها الخلف من دراره خدناها والخلق من درار بجاية دليما لله خال جاء tabarkàlla waaw léegi bëggoon nañ xam sëñ Ndiaga kan lay roy maanaam daaj daaju mag ñi la jël wala bëggoon nañ xam loolu tamit. daaju nag daanaka dañuy généraliser. Hmm. daaj ñu ngi ci am ak tawféex. dañuy roy ci ñu bari nag wax dëgg yàlla teewul nag ñu ngi jàng ci sunu ay air waaye ni ma koy faral di waxee rek mënoo ñëwee ñëw rek am sa air yi bopp. Hmm. faaw nga am ci ñoo topp am ci ñoo roy. Eh, ba tax nga eski seen sëñ Ousmane mi fi ñëwoon tey ci suba. yàlla dogal na ànd nañ ñeenti at man ak moom. ñu ko doon awu. mu nekkan jëwriñ bu baax ju yaatu ginnaaw macha allah. Ah, suñ maxtaar mi nga xam ne moo ci suñu jëwriñ nag daanaka lépp ci njàng mi lépp ci moom lañ ko jëlee macha allah. moo tax dañuy roy ci ñoom di nab nabi ci suñu ay aires bopp daal. am ba tey rek comme ñu ngi ci 18 safar. Mm. bés bu màgg. di boo xam ne ku tedd ki daane kaay leen santale ma yàlla peut-être dañu ñëw ci solos màggal maanaam lan ngay wax suñu mbokki taalibe yi nga xam ne bu ñu ñëwee Touba naka la ñu war a comporté woo naka la ñu mën a melowoo ba nga xam ne dina dëppoog li fi sëriñ bi woote ba nga xam ne dañ fen ma mën a amee ngërëmal yàlla ndax waaw sant yàlla daa nekk lu màgg daal ndax suñu borom daa ne sant ñaan leen ma may leen ngeen sant ma dolli leen waa loolu de daanaka nit ñi wax nañ ci bu baax a baax a baax a baax daanaka émission yëpp koo seetaan loolu lay wax melokan yi mënul wessu ñew doon ab talibé ñew doon ab julit cant gi ni ma xawon ci ca ben gi raxas sa xol ba mu set wecc yéene ci nak ne ma ngi li ci sëriñ bi yalla bañ fee ñew ngir leneen bo ñewé bañ fee togn te ko la togn nga bal ko bo ñewé baña fi jambur bo ñewé baña gaaw mer ndax dafa nek wutukay yi wo ni bu la mer yombee mën nañoo yàq sa tuyaaba moo tax ñuy sabab ñuy sàkku jéggale gu bari melokaan wi ci jëmm mooy defar sa jëmm ba ku ko seen xam mën koo xemmem loolu ci melokaan yi màggal gi la bu nu xëyee nag ci bisu màggal gi jàng arxuraan jàng xasida lewetal gàtt yi julli ci yonent bi sa alayhi wa sallam baalonte àq te ber loolu mooy cant gi Eh, léegi sëñ jaga mën nga ñu wax ci melo sëriñ bi manam sëriñ ku tedd ki ndax dundam gi yëpp da ko jox suñu borom tag di ci tag yonentou bi sallallahu alaihi wasallam sallam mën nga ñu wax tuuti rek ci ci ku tedd ki dal ñu ñu xam. waaw eh, mom day ni ko waxe ci xasida day rek amul won jot gudut yalla ak yonentou bi xasidaam yi nga xamne nak mom moom la ñu fi baye ñu di ci barkelu waxna miraran ne juróom ben weer yuma am. dinaa ci tàgg rasulullaay yeneen juróom benn weer yu ma am ma julli ko ci moom kon loolu tawféex la goo xamante ni gunn yàlla tawféexale sëriñ bi la deful xeju bu jël saayiram sange baatinam xañul nit mbiram biiram xañul nit mbiram kawam mbiram saayiram ak baatin dara yàqu ko li tax nan la pax tab yàlla yow waa ji may sewal ndegam gis nga kemum Seex Bàmba mi tax ma di géwél koku mo nek ki nga xamne kenn am ko sax yi ku dut ñun rek kon yalla nako yalla fayal ñu tewlu noddu gi xamna ni mi ngi jubañ si bam mu pare ñu dogo yeggal yeggale liggéey bi موسى خادم الخديم bienvenue à Darou Salam lunette di boutique bi leen àndi lépp loo xam ne da ngeen koy soxla ci wa Moussa Khadimul Khadim 18 safar. Magal Touba édition 2022 Refane TV du des ginnaaw ñu fas yéene andil programme bu am solo ay plateau spécial fas yéene ci ànd ak ay kàngam ak i boroomi xam-xam ñu daal di waxtaane li nga xamante daal moo di jaar-jaari Serigne Touba ba ci tukkib géej gi ak li nga xamante daal moo di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ba tax na ma ne yéen sponsor yi nga xamante daal yéen a fas yéene ànd ak Refane TV ci Magal édition 2022 bi Refane TV ubbil na leen ay buntam mën ngeen a ci service

ba àdduna sosoog léegi kenn mësu koo tàgg lu mel noonu moo sabab mu am garaatu xaadim rasul ndax dani maxam mahabati al muxtaara sayyidina xubbil maghani wal ardina wal warida dami waax li wa awlaadin fi daawuloo abdan xadimaloo muskaane li sanada am naa cofeel ci njool màkk gu toll noo xamante ni mbooleem loo xamante ni ko rek maanaam bëgg gi ma bëgg rasulaay tax ba loolu bàyyeetuma ko xel mbooleem loo xamante ni war naa bi nag jote naa ko sama deret yi na dal ta bay yeneen bi kon cofeel fofu la mëna a yem soxna euh, su baax silé ci sëriñ bi ñi ngi sant bu baax dal ni la ko mën a waxe daal ñaan yalla mi nga xamni moy mëna dimbalé jamm mu defal lu magal gu nangu gu ciat amul ci barké bi alayhi salatu wassalam wa kon lañ lay bayé rek nga rajo salaan ñu tuté rek ci xass day ba tay rek mi أولياء رب الأرش أبقي بتسليمي للمصطفى مخجل اليم من الله رب الأرش أبقي صلاته بتسليمي للمصطفى مخجل اليم ملت بلا بالمخدل الموج واليم بمد الذي انزاز الفلك كالخمي مرام وجد اليابيد وجد من الوسور الولي كان بسمي مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاتمه بسره والبزاسم مساك كل لدى الكل خل جلا ولكن جلا نسر ونسمي مقامات خير الخلق الخير ربي مخيبة فلتغرر زورة نجمي محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من هو الأمر اللقمي محمد المعروف مائل ومن خل وبالاسم مخصوص المسؤول عن الوسم مجيب المجاب مرتجان ملك الهداء مليور وموس من الناس والوهم مديون جلانا دجنا مالل مبيور مبوس للورب واللجي مدلة علم المرتجلة لنا جري المرجل من سنوب ومن سلم ما لا بن بي كل فاسد وسرت عبد الخديم بلا خم من الله رب الارزاق صلاة بتسليمي للمصطفى مخدل اليمين من الله رب الارزاق صلاة بتسليمي للمصطفى مخدل اليمين ma jukkañ waaja daa way ngeen ji yeneen beneen fal ko muy xut bu boroomam li tax way wii wolof te waroon de arab dama nar gaa jàngul xam boroomam man it li fi jaloore te si lii ndamam te xar baayu tax ngeen xam boroomam te xëj ya yàlla fal xam ne maqaamam maqaamam foo xam mbooleem ñooñ boroomam ca wàll yaag ca xaw su ya sax fa xun ba yaag ña daaweetal boroom ña xam yàlla ña xam ya leen ca baawoon ba kenn jaaragul fa mu jaar boroomam te wax ji moo ko wax ba ko noor ya yóbboo ku dingat wax ji moo juyoo boroomam Sëriñ Tuubaa di maanaam dex ku dem duy ku soobu nemes bu génnee xam boroomam ku soobu dex na xam ndox daf bi yeewul na wattum ndox leen na teex ca biiram ku sàggan sànku faw te lab te doo duy doo set doo setal doo xam boroomam melay bàmbaa ngi waaju xamul na dégloo te roy roy jikkoom ya kii moo xam boroomam li lee tax mu daa tubloo dameel ak maxaki teeñ ku mel ni ko am moom ne leen na yaa ko tooñ du tooñ nit te boo tooñee mu jéggalatin la ko du tooñ nit te boo tooñee mu jéggalatin la ko gisal saa yi reskaayam yi daawar ci naaru góor mu teg cay wataak luy naaw Suleymaan lore ci góor ñu naa déet mu jël waa Mbàkke def leen ñu digli ngeer mu far xotti Mbàkke ak ay mbedd ñuy bëggeer saxaar gaa ngi ñëw Touba te daw ba teggi ko faral noppi yow Moussa ngiree gumba ràññewul guddeeg bëccëg ak leer ak lëndëm gët ya gimmiwul mënee fu la wa mat kooka ngir Touba yorti ko jullil nag ci yónneen ngeen ji kay doomi Yaasin te mooy baayu Ibrahima te mooy baayu Haasim maalaali walla saabi yaaram yaa wax na ko addee si amat bam bax macha allah sëñ Ndiaga Fall bëgg nañ lool kontaan nañ baax a baax ci yow xanaa dañuy naan saa borom defal la ci lu kawe sa njot suñu borom wéral baat bi ci barke Cheikhouna Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul kon dañ lay bàyyi rek nga daal di tàggu mbokki taalibe yi ba beneen émission waxtu wi dañoo xaw a tënk lool ñu ngi lay bàyyi daal nga tàggatoo. waaw am nañ mbégte ci jotaay bi xam naa. dese nañ ko waaj waaye nag tubaarkàlla naam guy dolli mar la rek lu dul doy moom loo ci am day doy sëg euh, ndax comme yàlla dañoo boole ñu bokk gox yi mooy sabab bu ngeen ñu soxlaa rek du jafe ñu bañ a ñëw waaye tey xatat na ci ñun lool ci coono ak ci yeneen itte yoo xamante ne ñu ngi ci waaye caanaar moom dafa mujj forcé rek ba mujj ñu ñëw kon ñu ngi koy ñaanal di ñaanal waa Refane TV di ñaanal directeur bi yàlla yokk leen ba mu nekk télévision ñu ngi gërëm daal mboolem koo xamante ni dugal nga sa loxo ci màggal gi ci saayir ak baatin mm. yàlla na sëriñ bi dimbalil boppam ci barkeb alxuraan karim bu déwénee nga mën lu ko ëpp ci xéewal ci saayir ak ci baatin mboolem koo xamante ni daal maanaam amoon nga yéene ñëw te ñëwoo yàlla nu bokk yow yoolu màggal gi suñu kàddu fu mu yegg daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan yàlla mi jàmm defal ñëpp jàmm di jaay rasulullah a baax ci bi nga ñu accordeel di la ñaanal saa borom gën laa dëgëral rek kon noonu yi nga xam ne saa su nekk rek yéen a ñu bàyyi xel fi ci Refane TV di jaajëfal baax suñu sponsor yi ñuy àndal Daaru Salaam lunette ak Xelcom numérique Fallou Faye ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax di jaajëfal mbokki internet yi nga xam ne saa su nekk rek yéen a ñu bàyyi xel fii ba tey rek émission màggal gi ndax 18 safar ku tedd ki moo ne kaay leen santam la borom bi subhaanahu wa taala kon dañ koy wéral rek ci ci yeneen jotaay rek may jaajëfal bu baax sama caméraman xaadim ak cànnaar di jaajëfal képp koo xam ne rek yaa nekkoon ci réalisateur bi di jaajëfal ñëpp rek di wax ne nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax ci li ñu fi andi nañu ba gën a góorgóorlu ci li nga xam ne moom la sëriñ bi woote muy sant ñu wàccee sant yàlla bernde ndax du ay caaxaan kon ñu ngi jaajëfal ñëpp rek di di ñaanal ñëpp jàmm rek ak tawféex yalla nañ ci ak dal ngeuleumal serigne touba lepp luñ ci bëgg dal suñu borom yombalo ñu ko ndax borom touba amna ko te man nako kon ñu ngi jaajeufal ñëpp rek di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh 18 safa magal touba édition 2022 Refan TV du dess ginaaw ñu fassiyene andil programme bu am solo ay plateau spécial fassiyene ci and ak ay kangam ak borom xam xam ñu dal di waxtane li nga xamadi dal modi jaar jaar serigne touba ba ci tukkeb geej gi ak li nga xamadi dal modi fukki fan ak juroom ñatt ci wéru safa ba taxna mané yene sponsor yi nga xamadi dal yene fassiyene and ak ak TV qui màggal édition 2022 bi Refane TV ubbil na les ay buntam mën jaar ci service commercial ba ngeen daldi wote ci 77 834 25 74 Refane TV mo ngi len di ñaanal

mënti doon boo yëgsee fii dinañ la ko defaral ba ni nga ko bëggee moo xam muy ay tiset pour mariage moo xam nga bëgg a defar flocage ci sa maillot waaye ñu foofu politicien yi nga xam ne dañoo bëgg di defar ay nombre de tiset yu bëree bëri boo yëgsee fii si établissement Fallou Faye sa aajo dal di faju waaye ñu foofu dañuy defar li nga xam ne mooy ay cadre de photo ay bâche numérique ak ay tableau ay bâche autocollant yow mi bëgg a décorer sa entreprise ba mu rafet lool daw sil gaaw seet si waa Xelcom numérique ak màggal gii di waaj mi bëgg a sa dawal gaaw téeméeri mën nga fee ca Médina rue 37 angle 28 wala nga fekk leen fee ca Thiès Mbour 3 soo passé stade Lat kon yow mi bëgg defar say set wala nga bëgg impression numérique dawal gaaw seeti waa établissement Fallou Faye wala nga woo leen ci seen numéro téléphone 77 630 84 85 ou le 76 334 45 45 établissement Fallou Faye un service rapide ànd ak mbégte